Fallou dañu dafa mel ni ci fàqmaan yi nga nekkoon na ah. côté ci pont Grand Yoff bi nest pas foofu nga nekkoon. waaw. lan moo la yóbbuwoon foofu. waaw kër. léegi amoon problème ak sa yaay. nga woon la dem. yaay boo xam fu foofu yàgg nga fa kañ nga fa dem. yàgg na de ñaari weer. def na ñaari weer yaa ngi foofu. waaw. kan moo la indi fii. Badara Kebe. Badara Kebe moo la indi fii. depuis yow da doon gens di tux di def yooyu. déedéet daan mu tux de. mais da nga daan gens. waaw. mais toog depuis Badara Kebe récupéré la indi la fii hmm? gens a too tuxu tuxutoo dafa too yooyu. déedéet. Hmm. ban changement nga gis depuis nga jógee fële na le depuis nga récup mu récupéré la fële. rek nan la la nan nan nga nan def ba ñëw fii quoi. liggéey. Hmm? liggéey moo fi indi. non ma ne nan nga def ba gisante ak Badara Kebe. Badara Kebe. laa gisoon. nan nga def ba gisante moom ba mu indi la fii. Badara Kebe. Hmm. dafa ñëw si kër gi fii. ah fi daan ñëw. après ci la découvrir na yow da doon def yooyu yaa ngi fàq foofu nekk foofu et tout mu récupéré leen la fii. Hmm? waaw. Hmm. ban changement nga gis fee ak fii ban moo dàq. fii moo dàq. du ah, tax fii dàq. fii moo dàq de. ah déedéet yow kañ dama bëgg ñu delluwaat fële ci suufu pont bi foofu dégg naa ay moo yu baax moo fa am nga xëccaat ci affaire yi wala. <laughs> bëggoo delluwaat bëggoo ñamaat ci affaire yi. déedéet kon fii neex naa Kër Badara neex na de. Ah. waaw <laughs> merci beaucoup Fallou merci.